maggaraaw jamaatu ibaadu rahmaan ci li ñu liggéey ci réew mi waaye li ñu liggéey ci njàngale mi les pères dañu am gis-gis yu sori yu xóot yu rafet waaye gis-gis yu yàlla suñu boroom barkeel gis-gis booba may ñu taxawal école di institution bu mag bu tudd franco arabe bilal mu meññi ma ana tilmizun min madrasati bilal ana abnaau min abnaai madrasati bilal kon loolu mënuma ko woon ñàkk bañ a génne waaye nekk doomu bilaal di fierté bu mag ci man waaye di responsabilité nekk doomu Bilal du nodd de c'est être porteur de valeur c'est être porteur de vertu c'est être ambassadeur dans une société en crise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 wa ida xaatabahum loolu di leçon bu rëy boo xamante ni da ngeen ñu koy jàngal ñun homme politique ñu jàngal ñu humilité moytu rëy rëy ndax li ñu rey lor ñu ñun politicien mooy l'arrogance politique waaye mu jàngal ñu le pardon mu jàngal ñu la tolérance waaye mu jàngal ñu li ëpp solo ca tey ji àdduna bi yépp soxla ko muy la paix la paix la paix li école bi def ci ñun bi ñuy nekk xale ndekete loola yóbbal na boo xamante ni plus tard lañ koy comprendre bi ma yàlla defee ma nekk maire de la ville de Thiès ànd ko ak yeneen maire yi ci commune bi ak ni ñu fekk ci dëkk bi ñii ni ñun action bu jëkk bi ñuy def ñu war ko tàmbali àllarba talaata mu jëkk ci li nga xamante ni ñun maire yi yor Thiès moom lañuy def mooy Thiès ville propre mooy set setal fexe dëkk bi taaru rafet set bu ma ñëwee école bi laal nekk xale leçon bi ñu lay jëkk a jàngal an nazafatu min al iman nazafatu min boobu toppuñu ba tey muy leçon bi ñu jëkk a jàng action bi ñuy jëkk a teg fàttali ñu dëkkuwaay yi dafa war a rafet dëkkuwaay yi dafa war a sell suñu kàddu kàddu gërëm la kàddu sant la kàddu njukkal la waaye kàddu ñaan la ndax responsabilité yi suñu borom teg ci ñun du ak responsabilité ngeen ñaanal ñu yàlla kàttanal ñu yàlla dooleel ñu yàlla téyel ñu suñu bopp yàlla bëggal ñu namal ñu suñu bopp ñu jaar ci yoonu njub yoonu siraatal mustaqim ba ni ngeen tuddee seen bopp jaamu suñu boroom ibaadu rahmaan ñun politiciens yi ñu góor góorgóorlu ba xam ne dañu war a nekk jaamu askan wi ana xaadimu shaabi asalaamu aleykum wa wa barakaatu